rujoohun lii ak dellu la ilal xabari jëm ca xabaar ba xaala seyxu mbakke buso sëriñ mbakke buso wax na ne falama asala lahol ba nga xamee ne yàlla dogal na firfiri ja ngir sëriñ tuba jaaxal leen ñoom ñëpp te ma nga minal haradayni ca ñaari xew-xew ya alhaari dayni ya nga xam ne mooy xew-xew ya nga xam ne am na xërëdu lixtilaati gaar ga nga xam ne xew-xew gaar gaar ba amoon ca jaxasooga wa xërëdu sawxi ak gaar ga nga xam ne moo am ca xew-xewab cofeel ga sëriñ bi am ci dem màkk ba amee daal naa daa nii sëriñ Tuubaa woo na ma man sëriñ Mbàkke Buso faa wëdde mu daal di ma koy wax waxtaan caag man fihima ca ñaari xew-xew yooyee ndax kat dollante ne fu mu mën di nekk moom sëriñ bi buuri ceddo yaag sëriñ saak seeni dongo suuf su fi mën di taxaw rek ca jolof ak ci bawal ñépp a ngay firfiri teyit mu boole ca bëgg a ber yi boole ca am ak cofeel ci dem Makka bëgg génn Tuuba dem ci beneen dëkk ndax ñaruti dongo dañoo ñëw fekk si ko Touba dongo yay liggéey ak yay jàng jaxasoo ñeeduti dongo jaxasoo ci seeni biir sëriñ bi nag bëgg a beroog taaliba yi liggéeyal yàlla ci ñoom bu ëllëg ñuy defar doomu aadama looloo tax mu bëgg a génn Touba kon gaar gaar yooyu yëpp gaar na ci sëñ bi tax nag sëriñ bi bëgg a toxu Touba dem ci beneen dëkk ba mu ma waxtaanee man ca loola nag wasaawara nii mu dal di diisoog man Serigne Mbacke Bousso fii insa i ci dem sos beneen bërëb feneen bërëb boo xam ne bu gënee Touba sos ko feneen moom Serigne Touba yetta makkanu fii min tamyisil fariqayni dana jekku foofe ci teqale ñaari kuréel yi min xayrihim teqale nag ñeneen ña bokk jéem a dugg si ci ñoom te bokkuñu ñoom dara mu mën leen a teqale wa tamyiisi baynahum mu teqale tamit seen diggante ñoom dongo yi ñay liggéey beru ne ñay jàng xam-xam ak alquran beru ne loolu daal jàpp na ne faw mu génn Tuuba dem ci beneen dëkk sanc ko doog fa mën a am jekku googu ci njaboot gi waaw moo tax wa tamyiisi baynahum humu ña nekk di liggéey mu ber leen ne ñay jàng alxuraan ay dan ba tey mu ber leen ne jàpp na moom Sëriñ Tuubaa ne bu defee noonu li yetta makkana dina jekku ba mën a jubale ahlu taxalumi ñay xamlu alxuraan mina taxalumi ñu nekk ca seena xamlu alxuraan waxayana li taxmii li taxlimil quraani mu ràññale féetale ñay jàng alquran ñu jànge a aseykh ahmada rahman loo mu féetale njàngalem alquran ma sëriñ cheikh abdourahman loo wali taxlimil ilmi ñay jàng xam-xam mu féetale leen aqaahu doomi baayam ja aseykh ibrahim faati maam Cheikh Ibrahima Faati mu féetale ko njàngaleem xam-xam ma jàpp ne ne faaw mu génne Tuubaa pour mën a jekku ca jamono yooyu nag yës xëbu ca sëriñ bi deme maahuma ànd ak ya bi his bay hima ànd ak ñaari kuréelam yépp ila mahalli aljadiidi dem ca bërëbëb maamam ba bërëbëb boobee nga xam ne euh, béréb bu mu yeesal la mu dem fa ba mu fay dem tamit doona xayrihim kudut taalibeem yooyee muy jàngal muy dongo ya muy jàngal bokkoo ca min xiyal yi ca njaboot ga alxaasi ñay waroom ak ci moom duñ ko jege-jege njaboot gépp da leen a bàyyi tuuba ànd ak dongo ya dong dem ca suufas mbàkke bari ndax jekku njàngale ma mu leen di jàngal mu bàyyi waa Tuuba wasawil hiyaali ak ña nga xam ne dañoo am ak njaboot minal ashaabi te bokk ci murit yi maanaam bokk ci dongo yi da leen faa bàyyi ñooñu ak seen njaboot gépp da leen a bàyyi Tuuba su ma xaala lii topp mu wax ma nag man Serigne Mbacke Bousso wa anta yow Serigne Mbacke Bousso isan kon tabxa fii tuuba na nga des fii nag ci tuuba kabiral i lati nga magal njaboot gi yow sëriñ Mbàkke Buso sama doomi nijaay nga te maa la yar ci xam-xam ak jàng ak jàngale kon yow nekkal tuuba ak njaboot gi ma am ci tuuba ngeen des fii ci tuuba nga magal njaboot gi des nga fi des nag yow sëriñ Mbàkke Buso xamal ne yan silo alayka dana wàcc di ñëw fa yow zuwaaru ñay siyaare bil hadaya ànd ak seeni addiya bu ñëwee ci yow nag tuusilu man aw salta ilay naa képp koo xam ne yëg nga ne dan ko war a yebal mu ñëw fekk sunu ca mbàkke bari ah su la neexee bi rax ci sa bopp nga yebal ko mu ñëw fekk nu foofe ca mbàkke bari wa taruddu man raddta képp koo xam ne tamit jàpp nga ne mën naa yow mën naa yem fi yow Mbàkke Buso te dë dëppaat dellu fa mu dëkkoon siyaare delluwaat xoolal say xalaat rek su boobaa tamit mu yem fi yow dëppaat dellu fa mu dëkkoon ndeysaan kullu saalika lépp loolu nag bi mu waafaqatin min naa nekk na loo xam ne dëppoo naa ci ak yow dëppoo naa ca it ak mboolem kuy taalibe loo ko digal dina ko def loo ko tere dina ko bàyyi kon dëppoo nañu min naa ca loolee nun ñëpp fa minum ak ñoom fa waa waxtuwoo fa waa faxtuwoo man sëriñ Mbàkke Buso tamit ma daal di dëppoo sëriñ Tuubaa ca ma daal di koy wax ne xaasa lii nga wax day rëx ay xalaat la yu sell mubaarikun mubarakun yal na barkeel incha allahu njeem soob na yàlla sëriñ Mbàkke bu so nee ba loola amee nag fa saraxa sëriñ Tuubaa tàmbali nag yeta xëy uh, di waaj lakkin waaye mboolem waaj gi muy waaja a jóge dem tuxu Mbàkke bari ngir jekk ko jàngale mi mu war jàngal dong yi waaj moomu kat sëriñ bi koy def waaye bi xufiyatin ci làqu min xayril xabaasi ci képp koo xam ne bokkoo ca xejj ya daf la koy làq ba mu demee ba wàcc mooma nag mu nekk ca moom sëriñ Tuubaa fa la maa xawiya ba mu demee ba dëgër nag asmuhoo dogoom ga ala asiyil maxsadati ci jubluwaay bii nag mu jubloo dem nag génn Tuubaa dem Mbàkke Bari ak dongo ya ba sëriñ Tuubaa demee nag ba loola dëgër ba nga xam ne nag faw mu dem lu jiitu loolu lépp nag waaj ma wakkaana nekkoon na bi xufiyatin cig nëbbu ma ngi koy nëbbu day min waa li di sama baay man sëriñ Mbàkke Bousso mii di wax ak yow te sama baay di nijaay sëriñ Touba bokk ak maam Jaaratulaay ndey ak baay di sëriñ Mouhamadou Bousso kooku day sëriñ Touba daf ko doon làq génn gi mu nar a génn Touba ngir dem ca suufas Mbàkke Bari waaj moomu yépp waxu ca dara sama baay xaali yi tey nijaayam tey sama baay boobu wakkaana saakitan daa nekkoon koo xam ne daa noppi rek fii am ri ci samay mbir maa woo ànd sëriñ Touba moom daal sëriñ Touba damaa bàyyeeg moom rek moom sama bàyyi yuusur mu ëppal sëriñ Touba ci saa jëmm ji yuusur bi bii mm, sëriñ Touba daal sama bàyyi damaa wàcc moom rek ka an lam yaxtaaj ilaya mel ni saa bàyyi daal soxlawu ma ci dara yónni sax duma ko def sama lépp damaa bàyyeeg ma ànd sëriñ Touba rek waaw léegi nag alima sayxu an la budda min ihlaami bi sëñ Tuubaa xamee nag faaw mu génn te nag mënta ñàkk nag ci mu xamal génn googu muy waaj a def alqaali nijaayam jooju di saabaay bil amri ci mbir mi ah mujj nag moom sëriñ Tuubaa nag ba xamee ne nar naa jublu ca mbir ma fa allamahu mu yëgal ko sama baay nag ba mu ko yëgalee bu baay Mouhamadou Bousso man sëriñ Mbàkke Bousso bi sëriñ Tuubaa yëgalee sama baay Mouhamadou Bousso ne ah, damay génn Tuubaa kat dongo yi dem ca suufas Mbàkke bari sa ma sax faak ñoom jàngal leen ñeneen ñi ci des ci njaboot gi nag ma bàyyi leen feek sëriñ Mbàkke boso mii ah loola nag fa sàq alayhi tiis na lool ci sama bàyyi Mouhamadou Buso man sëriñ Mbàkke Buso mii di la nettali mbir mi génn gi sëñ Tuubaa nar a génn Tuubaa tiis na lool bi mu ko yëgalee saa baay saali ko mbir moomee li tax mu tiis saa baay nag Mouhamadou Buso lima alima ngir la mu xam moom saa baay min xiiratil mulooki ca fiir gu mag ga nekk ca buuri jolof ya waaw mu ne buuri jolof dañoo fiir lool ci koo xam ne mbooloo ma mabb nañu topp ko tama xam ne Sëriñ Tuubaa moom fu mu dem mbooloo ma mabb topp ko ngir xam-xam ba jàngale ga ah loolo tax sama bàyyi nag am caw mitit lool aku tiis ci Sëriñ Tuubaa génn Tuubaa di dem Jolof ndeysaan min xiiratil muluki jolof buuri jolof dañoo fiir lool wa xillati sabrihim ak néew ga nga xam ne néew na ko seen muñ ci koo xam ne dafa am daraja koo xam ne dafa am xam-xam koo xam ne bu ñëwee seeni doom ak seeni doomi soxna mab bu topp ji ko te su boobaa buuri jolof ya duñu mën a muñ loola moom na ko waa buuri bawal mën a muñe fekku ca waa jolof ñoom daal ñu ko di lañu nit koo xam ne rek nit ña topp nañ ko si nag muñ daal àggut ca loola moom looloo tax nag sama baay Mamadou Bousso di loola tiis ca moom lool ndax xam na ne bu demee jolof waa jolof dinañ koo xeex dinañ bëreeg moom